يا الله بالله masyarakat salman tak hambek eksek abas baga. Mereka juga nak dekat ber. Baka ada tekat sama loko. Dia sebuah buk ada tekat sama loko. Dama vaksin kada ba mana eka rakam. Mandir mana tekat sama loko. Mandir badan kusin kada eka rakam. Kena gelap. Lama fada ba. Mum labat. Wadah fad mama labat. Lep ngam lo kelo lo. Yo lo kiring be. Gena moya bo bo lo le jale. Men ko yan fe yan o sirin to ba ama sabla. Be ba se ba. Kata se ba se ma par se la. La fe sur la ba sur le bodem de ko. Sur se ha bil har mam jarno o sam ba ta. Assalamu alaikum wa ta'ala wa barakatuh. yéen mbokki taalibe yi yéen bokki jullit yi maa ngi leen di nuyu ci di leen siyaare te di leen balu àq te di leen bal àq te di leen jottali ay kàddu yu jóge ci Cheikh Pathé di Serigne Cheikh Sylla mi taxawaayu taxawaayu Cheikh Pathé tey fii diwaan ci kanam taalibe yi ak doom yi ak sët yi ak mbokk yi maa ngi leen di xamal ne sëriñ bi nee na mu ngi leen di fàttali fàttewu leen ko sax waaye nag fàttali dafa baax bis bi ñu baaxoo defal Cheikh paate ci ñetti fan yi Tamxarit te yàlla dogal mu agsi ak jàmm yàlla nañ ca àgg ak jàmm sëriñ bi nee na amunu lu du Cheikh Pathé ku la ndax Cheikh Pathé moo nu boole ci sëñ Touba ku sëriñ Touba nag mënatoo koo defal lu ko fay ca moo nu boole ci sëriñ Touba kon nag bisam bii sëriñ bi nee na kuy doom ku dib sët ku dib taalibe kuy mbokk kuy xarit woo ci muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw ak bépp wëllëre woo na ci ren nag dafa dëppoog ubbiteg jumaa ji ñett ñeenti fan lay doon ci tam xarit mbaa ñetti fan loolu nag la la sëriñ bi di yëgal sëriñ Modou karaa Sylla la jox ndigalam lu sëriñ Modou karaa wax moom la sëñ Cheikh wax moom la nu wax lu mu def moom la sëriñ Cheikh def moom la nu def kon nag sëñ Modou Kara ngoog ci seen kanam lu mu leen wax noo ko wax lu mu leen sant noo ko santaane lu mu leen tere noo ko tere noo ngi leen xamane nag képp koo xam ne yaa ngi fi jëm si ni ngi lay ñaan nga ànd ak ab yar ak i teggiin ak suutura ndax dëkk bi dëkkab rayukaay la dëkkab rayukaay nag bëgg nañ képp ku fi taxaw doo fi jóge ñuy ñuy wax ci yow leneen lu bokkut ak la nga fa war a jële kon nag noo ngi leen di sant na ngeen ànd ak ab yar ak i teggiin ndax lan bëgg fa toobaa bëgg ko fa Daaru Muxti moom lan bëgg fi diiwaan ñu ngi leen di sant ca di leen gërëm ca di leen séenu wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ausubillahi min asheytaan irajim kàddu yu soññe ci ndigal ñu hmm. ci bis bi nga xam ni moom la diwaan woote ci ndigalul sëriñ Cheikh Faty Ndiaye si la xalifa borom diwaan ak njabootu borom diwaan bi yëpp bis bi nga ñu ngi ci soññi ñëpp taalibe yëpp bàyyiwuñu kenn xarit yi ak wëllëre yi bis bi nag naka jekk dañ ko daa def ndax fàttaliku ma paate si sunu kilifa ga waaye nag mu mel ni dañ cee dolli ak ubbiteg jumaa muy yaar yoo xay leen lu ci nekk ko dégg ca man caa rek soo ko mënee euh, dem ca njariñ la kon ñu ngi ci woo ñëpp di sooy ñëpp rawatina taalibe yi lu ngeen ci man nag ci lu baax rek euh, ci bis bi moom mm, yéen taalib maa ngi leen di soññ ñi ngeen def ko ndax naka jekk moom li leen war yéen a ngi ci waaye nag fàttali daa munta ñàkk rek bis bi nag dafa rëy fi lool loolu moo tax maa ngi leen di soññi kenn ku nekk daal nga yokk sa positif loo ci man rek nga nga nga def ko waaw ci jëf ak teewe nag ñu ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp wasalaam asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ahmadu karaasi la jaamub sëriñ tuubaa xaadim rasool euh, yéen bokki taalibe bi maa ngi leen di nuyu euh, ci sama nuyoo bopp di wax nag ci kàddu ki nga xam ne kàddoom ci laay waxee waxtu bu ne muy sama wayjur di sama baay di sama sëriñ di sama xarit moom it léppam mu di ko doxal ci ndigal ci tàmbalee ci xalifa Seex Ahmadul Xadim sëriñ taxaa wàcc ba ci sëriñ Abbas Mbàkke xalifa borom daaru ak Seex Muhammadul Murtada mi nga xam ne mooy buntam ci sëriñ Touba nekk suñ bunt nun ñëpp di ñaan yàlla yàggal leen fi di leen soññi ci loo xam ne nag ah sunu sunu yëfa ah, loo xam ne du tey rek lañ ko daa def yàgg na màggal yi gën a xumb ci Sénégal diwaan ci la bokkoon ñu tàmbal dañu di ko def nag at yëpp nag ñu ngi koy def ñu di ci soññiwaat rek ndax day bëgg a egsi ñu ngi soññi mbooleem koo xam ne ab taalibe la bu aju ci borom diwaan di soññi soppe yi ak xarit yi di soññi dëkkandoo yi képp ku mës a dëkk diwaan nga xam ne mas nga faa dëkk noonte ab surga nga fa rek sëriñ bi mi ngi lay wow ku fa mas nawet nekk rek def fa def am nawetaan waxumal nag ña fa mas ña fa dëkk sëriñ bi it nee na mi ngi soññi diwaan ca kanam ah, jokk ak bokk ak mbooleem si mbooleem yoon woo xam ne rek dañ koo tëral ci sil la bokk ci rek saateeg ndindeeg diwaan ak ah, kër ma ñaxalak ak ñaxal ak bàyyiwul genn ci la ci la bàyyiwul genn ci la ci la yëpp sëriñ bi nee na mi ngi leen di xamal ne woowu leen da leen boole ci bis bi ndax bis bi yéen a ko bokk euh, may jëwrinam man Modou Kara Sylla la nekk ab taalibeem doon ki gën a tuuti ci diwaan doon ki yées ci yoonu murit teg ci te nangu naa ko waaye nag ma doon jaamu yàlla ginaaw bi ma nekkee taalibe sëriñ tubaa xaw ma sëriñ bi nangul na ma koom déet waaye nekk murit saadix rek su ma ma neex may wax nag mboolem ñi nga xam ne yàlla dafa def ñu bokkoon àndoon ko daaw bu leen soññee ba noppi ñu ngi leen di sant ndax rafetlu nañu doxin wi lool lool lool lool lool lool man day <clears throat> xam naa ne su fekkee damay waxal yàlla li ma ta ñaan daal nga xam ne moo ëpp solo mooy euh, euh, ñaanal taalibe yi rek ndax daal boo boo xoolee seen pas-pas ak seen yitte ci liggéey bu jëm ci diwaan ak soppe yi yow doo soññee sax doo ko bëgg a def danga naan naa ñaan ndax ñi ngay bëgg a dafa mel ne ñoo la gën a mën a dox soññi moom xanaa fàttali bis bi waaye soññi moom aw waxin la boo xam ne dañ koo tàmm tàmm tàmm ba nga xam ne wolof moom buy wax rek day wax noo ngi soññee waaye yaakaar naa ñoo ngi fàttali bis bi te xam naa ne kenn fàttewu ko kon nag ñi ngi wax ne nawet lañ nekk bis bi nag tam xarit lay doon bu ñetti fan yi tam xarit dañ koy booleeg jumaa ji nag jullig jumaa ji moo xam jullig jumaa ji liñ ko tënkee daal mooy ajuma ji njëkk ci bu weeru tam xarit bi feeñee ajuma ji ci njëkk mooy màggal gi mooy julli julli gi ne ko ñëpp xam a ah, ñu bàyyi xel ci ne ah, mboolem ku dib taalibe ci aju ci man liggéey bañ fa war a liggéey moom nañ bàyyi xel ci ne moo ëpp liggéeyu Daaru Musti ci xeeti liggéey yëpp nag ndax loolu doy na sëkk ci wax ci teggin ndax liggéeyu màggal ku ne xam naa lim doon lépp ñu ci soññi kon Abidjan di ci soññi France Italie Belgique Allemagne Amérique ak Sénégal di ci soññ mboolem Afrique bi Sud ak Argentine fu taalibe bi sëriñ bi nekk rek ñu ngi lay soññ ci bis bi li la ci war nga xam nga ko kenn du kenn bul xaarit kenn soññ la ci euh, lépp lu luñ fay defee nag ñu bàyyi xel ci ne ci ndigalul kenn rek lañ koy def bëgg-bëggub kenn muy sëriñ Cheikh Faty Sylla Ndiaye bu ne woon màggal gi tey lay yem bu mu amati kenn duutu ko def nañ bàyyi xel ci ne lu mu fa santaanewul Modou Kara moom santaanewu ko lu mu fa bëggul bëgguma ko wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bokki jullit yi bokki taalibe yi bokki diwaan si la ñu ngi leen di nuyu ci ndigalul sëñ Cheikh Fass Sylla Ndiaye xalifa Cheikh Mapaté Sylla ak i rakam ci ndigalul sëñ Modou Kara Sylla xalifa sëñ Cheikh Sylla diwaan ak i rakam man sëñ Modou Habib Sylla dañ maa jox ndigal ma am lu may jottali ngir màggalu diwaan gi ñu ngi leen di woo ci màggalu diwaan gi ñuy bëgg a def mu war a tollook ñetti fan yi tamxarit waaye ni ko sëñ bi jàppee ren sëñ Cheikh Fan si la dafa jàpp ajuma ji njëkk ci weeru tam xarit bi moo doon màggal gi moo doon ubbital jumaa ji ñu ci woo taalibe yi ñëpp góor ak jigéen mag ak ndaw di ci woo taalibe yi Seex Ma Paate yi di ci woo taalibe yi Sëñ Tuubaa yi di ci woo jullit yëpp bàyyiwun kenn góor ak jigéen mag ndaw rawatina nag waa kër sëñ ma paate waaye rawatina nag waa kër sëñ Wasiiru ñi nga xam ne tey maak samay rakk ñi ngi ñuy toog muy sëñ ma docteur ak sëñ Abdou ak ñi fi nekkut seen toogal leen fi ñu ciy waxe danoo bëgg bépp taalibe boo xam ne tey yaakaar nga kër googu gi te nun ñiy toog ñuy sa wasi la jox nañ la ndigalul bisub sëñ ma paate seli bii nañ ko jàpp ca di ca ñëw ndax ñu ëpp ci taalibe yi kat fii ne ba tey diwaan duñ fa jaar loolu nag man maa ciy def saa soññe bopp boo xam ne taalibe yi neen jógaat ca xam li ñu am leen am dafa yombut seex ma paate lim am ci Serigne Touba am ko ci borom daaru nun bis boobee kenn ku ci ne da nga fay taate di fas yéene duy sa ndab kon nag yéen taalibe yi maa ngi leen di digal fépp fooy mën a nekk muy ci réew mi ak bitim réew ca mën a teewee bis boobu na nga ko fas yéene ñëw teewe si taatan fa duy fas yéene duy sa ndab ca xam ne ku fa ñëw sa bopp rek ngay defal kon ñu ngi ci soññu ñëpp di yàlla ñu àgg ci jàmm salaam ci defaat ay téeméeri cee ñaanal sëñ Cheikh la Ndiaye xalifa sëñ Mapaate bi ak i rakam yàlla guddal aw fanam ak i rakam ba lim yéenee liggéeyal Cheikh Mapaate mu def koy at ñu ànd kook moom ak sëñ Modou Kara mi nga xam ne mooy suñ jëwriñ di suñ mag di suñu sëriñ di suñ xarit di suñ loxo di jëwriñ maanaam diwaan nu it nu yor loxoom di ko waxal kon ñoo ngi woo taalibe yi ñëpp góor ak jigéen bàyyiwun kenn kenn ku ci nekk bis boobu na nga xalaat ni lañ cey def bu dee def wala wax xalaatal na yow yaa ko war a def wala yaa ko war a wax ca kenn ku ne nga xam ne rek sa bopp nga koy defal ndax bis bi kat bis bu mat a mat a def la ndax bis boo xam ni maanaam euh, Cheikh ma paate dafa dem ba liggéeyal Serigne Touba ba sëñ Touba gërëm ko boole koog Cheikh Ibra Faty Cheikh Ibra Faty gërëm ko mu ñëw sanc diiwaan diiwaan doon sembal bu rëy ci diine lislaam ñuy woote bisam kon yéen taalibe yi ñu ngeen di woo bàyyiwun kenn bàyyiwun mag bàyyiwun ndaw ñëpp ñu ngi leen di woo ca kenn ku ci nekkit lépp lu man ci bis boobu na ko ci def ca xam ne lu ci waaye defit sa bopp rek nga ko ko defal ñu ngi leen di sant ñu ngi li gërëm bàyyi wun kenn nag ci woote bi ñu ngi woo wëlëre yi ñu ngi woo xarit yi ñu ngi woo it képp koo xam ne tey nituk diine nga te bokk ci diine lislaam rek ñu ngi la woo ci bis suñu paadisali bii bàyyi wun góor bàyyi jigéen bàyyi wun mag يا الله بال